Eh, sànq Marcel ma nuyuwaat la. waaw di la fayaat soxna naa te di nuyuwaat mbokk téléspectateurs yëpp ñuy seetaan. Eh, tey jii chiffre nga ñu indil. Mhm. ñaar fukk ak ñeent ñuy wax ci variant Omicron. di dugg ci réewu Sénégal. 3 mhm. euh, décembre ba léegi. exactement eh, tey jii ñu ngi ci 23 décembre. Mhm. maanaam 20 jours après fan lañ ci toll. voilà fu ñu ci toll mooy comme ni nga ko waxee chiffre bi daf koy révélé euh, ñaar fukk ak ñeent loolu mooy euh, nombre de cas positifs au variant Omicron bi nga xamante ne. donc euh, dañ ko daal di euh, en tout cas arrêté à la date euh, du 21 décembre Euh, donc euh, ñu gis ne ne rek dinañ ci ñëwaat euh, mhm. que chiffre yaa ngi gën di yokk. Mhm. Mhm. aywa ñu dem ci chiffre yi nga xamante ne dafay gën a yokk rawatina ci mois de décembre bi. lan lan moo ko bi dafa mel ni variant Omicron bi am na effet am na impact ndaxte du 3 au 21 diggante ñetti fan ci weeru décembre ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre. ñu ngi enregistré ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari cas yoo xamante ne dans l'ensemble hein global euh, yeneen variant itam dañ ci bokk euh, ñu jàpp ne journée 21 décembre bi nag moom moo nekk la journée bu enregistré fu mu nekk nii le plus grand nombre de cas dañ ci daal di enregistré 27 cas le plus petit nombre de cas positifs nag en di amee keroog le 13 décembre avec euh, deux cas donc

moom moo joxe xibaar bi toujours l'Institut Pasteur bu ñu sukkandikoo ci moom bu euh, am 29 moom tamit euh, benn ci benn hôtel Dakar la nekkoon moom da doon dem ci benn réew Afrique australe diggante ay Afrique du Sud ak euh, yi di mel donc loolu mooy caractéristique wu les trois premiers cas positifs à Omicron. alors kii euh, di chef de l'État kii di jiitu réew mi di Macky Sall moom euh, nee na que liggéey bi dafa bëri tellement Afrique que benn virus ak lu mu mënti tar warul tax ba activité économique bi ñu daal di koy taxawal euh, donc ne nag waaye quand même il faut que ñu vacciner wu ji mu ngi continuer sensibilisation bi nee itam ñu respecter les gestes barrières et puis la vie va continuer donc nee na l'Afrique elle est résiliente elle est vieille yàgg na ak continent africain machallah don développement développement du taxaw ndaxte Covid 19 mu ngi fii. te ñu yaakaaroon ne rek euh, Covid 19 euh, dina. dina rey Afrique entre guillemets euh, ñooñu daal bu yeboo rek ñu daal di ñu daal di daw ndaxte demeewul doon. <laughs> léegi ñu taxaw tuuti Marcel. ci ah. caractéristique yu Omicron maanaam li koy màndargaal. tout à fait alors bu ñu sukkandikoo ci. plusieurs scientifiques notamment waa OMS surtout euh, ñoom ne neen daal potentiellement plus contagieux que Delta wàllaate bi moo gën a gaaw que bu Delta bi fi nekkoon euh, mais en tout cas moom li muy reyee moom moo gën a tuuti que bu bu variant Delta bi mhm. euh, ñii di waa OMS di fàttali tamit ne que comportement général variant bi ba ba léegi waneegul augmentation sévérité symptômes yi maanaam symptômes yi ça peut être bénin mën nga ko am sax te doo ko te doo am nga mhm. donc loolu mooy beneen particularité bi et puis ay expert sud-africain daal di rek euh, dalal xel ñu bëri euh, ndaxte euh, neneen daal moins de patients yoo xamante ne dañoo am Omicron ñooñu soxlawuñu oxygène ak ventilateur comme ni ñu ko remarqué woon ak variant Delta bi te ba pare seen hospitalisation du durer comme itam variant Delta bi donc nee na tamit mag yi nga xamante ne les adultes yoo xamante ne Omicron daf leen daf leen daal di dal environ 30 pour cent moins susceptibles d'être admis à l'hôpital donc ñooñu mën nañ ko am te duñu sax dem

sax dañoo indiwaat ay restrictions. surtout surtout en Europe ñu gis na ne Europe lay lay gën a dal day peut-être débat bi ci wàllu kan euh, bi ñu bëgg a ñu bëgg doxal wala déet euh, parce que fu ñu gis na ni ñoom ci ñoom la gën a la affaire bi gën a méttee euh, ñi di waa Allemagne ñoom par exemple jël neen dogal rek pour fête yi di ñëw neneen daal population yi askan yi du ñu mën a réunir wu à plus de dix personnes vaccinées du ëpp fukki nit yoo xamante ne dañoo war a itam présenter vaccination est-ce que dañoo vacciné wala déet et deux ne vacciné wuñu ñoom ñaar rek lañ leen ñu ñu daal di rassemblé wu loolu nag kii di chancelier bu bees di Olaf Scholz moom moo koy daal di euh, fàttali euh, te itam les clubs et discothèques dañ leen di nar a tëj euh, ci ci dëkk bi yëpp ci Allemagne yëpp toute compétition sportive surtout lu jëm ci wàllu football dañ leen di nar a jouer à huis clos foofu ci pays ñu daal di tëj itam magasin yi nga xamante ne dañ leen jugé non essentiel waaye tamit cinéma yi ak restaurant yi fële ca côté kii dañ leen di nar a tëj ñoom tamit et puis gouvernement japonais on part en Asie maintenant gouvernement japonais bi moom nee na day annoncé euh, annoncé en tout cas fermeture frontière am bépp visiteur boo xamante ne euh, étranger la face au variant euh, Omicron et puis en Afrique les autorités marocaines ñoom tamit dañoo décidé rek dañuy suspendre seeni vol direct de passagers à destination du Maroc pour une durée de deux semaines et puis en Israël ñoom tamit dañu daal di tere l'entrée des étrangers ci seen territoire ba pare dañuy imposer seen ressortissants yëpp ñu euh, vacciné ñu am benn test PCR et trois jours de quarantaine et puis sept pour les non vaccinés alors ñu jeexale euh, ci euh, ci constat bi parce que il faut au fond il n'y a aucune panique Omicron en Afrique mais il faudra quand même continuer les mesures barrières comme comme on le dit au total plusieurs milliers de cas d'Omicron 11 pays africains seulement ñoom ñoo koy euh, ñoom ñoo ko am donc pour au fond 33 pour cent du nombre global de cas chiffres yi nag c'était arrêté à la décembre soxna Naata. d'accord du nombre global yi <laughs> maa ngi xam naa yaa ngi bëgg a waxaat ci kaan bi ba tey waaye wax ji mooy omicron bi nee nañu gaa delta bi moo delta bi moo gënoon virulent mais Sénégal nemmeeku bi mooy man ak sama morom keneen ak keneen dafa mel ni dañoo fàtte ay takk masque ak yeneen yi dañoo da dem daal ba fàtte ko sax daanaka Alaaji Malick ah waaw ah, man dama foogoo di sax Marcel ngay continuer di laaj ba léegi mais li wér te daal moo di euh, dugg na fi donte defagu fi ay dégâts yi nga xam ne moom la fi euh, delta ak yu njëkk ya defoon. delta kay musiba voilà mi ngi noonu donc nañu gën a farlu gën a fagaru mais en tout cas di jaajëfalaat encore. Mhm. suñu euh, ñi nga xam ne. ñoom nekk ci wàllu santé. Mhm. ndax vraiment seen taxawaay am na solo. nombre de décès yi wàññeeku na ñi nga xam ni omicron bi sax dal na leen donte bitim réew la ñu jógee bi ñu leen mettre en quarantaine faj nañ leen ci lu gaaw ñu ba amatuñu virus bi mais ñi ñàkkuwul nañu ñàkku ji mhm. ñi ñàkku yi tamit nañu moytu te xam ni ñàkku du tere jàngoro ji dal la mhm. beneen bi ci des nag mooy wax dëgg yàlla fukki réew ak benn rek ci Afrique euh, ñoom ñoo ko fi am te ay benn benn cas lay doon donc bu ñu fekkee ni cent mille cas la ñu fële ca bretagne ñu war a def seen boxing day nañ ñu bàyyi ñu def suñu Coupe d'Afrique des Nations. Mm, Chérif yow ndax ñàkku nga Cheikh Tidiane Diaw ñàkku ngeen. ñëpp ñàkku nañu fi. ñuy ñàkku bay xaar troisième dose sax bu amoon. dañ koy jëlaat bu ah, ah, na ñu koy def Israël Sénégal moo tax kay ah, may wax. waa Sénégal comme ñàkk yi ñu ngi mi ñu koy sànni nan ko jox ñu ko aajo. ah kon boog nit ñi nañ dem ñàkku ji te wéy di takk masque yi quatrième quatrième dose sax ci yéen waaw di raxas loxo yi tout li ñu mooy c'est c'est bien que ñun duñu médecin mais dem nañ ba nit ñi xam ni jàngoro ji ni ko tubaab bi di xeexee ñun mënuñ koo xeexee ay confinement ak tëju parce que ñun suñ koom demeewul noonu te dëkk bi ku ci nekk da xëy di wuti dara ngir dund donc kooku mënoon laa tëj bon président gis nga déclaration bi mu ci mujj def parce que xam na mhm. nit ñi dem ñàkku ji masque yi ñu koy takk ci yenn barab yi bis bu ko defee activités yi mën a dox ku nekk gis sa bopp parce que bala ngaa xeex jàngoro tam ba loolu ci je pense que loolu baaxut nit ñi yeewu nañ ci loolu Afrique aussi nañ bàyyi africains yi tamit doxal seen doxal ku nekk ak na jàngoro ji mhm. parce que paludisme geneen jàngoro yi ñu ngi fiy rey